la Ahmadou Bamba kenn la Ahmadou Bamba kenn la topp Kennal gi TV tay ñu ngi fi ci bërëbu liggey kay fekk fekk sunu magum talibé di sëñ Bassirou ñang jalibatu marahib di kenn ci jëwriñu suñu am sutu Mbàkke ibnu suñ soxna ñu feggoog mom nak di wajal bis bu mag bi di bisu Kennal Serigne Touba Serigne Saliou Touré joxawat ci ndigal ñu japp lako tort mars sëriñ bi kenn gi nga xam ne suñu borom kennal na ko te kenn fekk ko ci suñu basiiru euh, comme sëriñ Mahalim ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax di am mbégte bu baax a baax ci jataay bi xam naa bett na waaye lépp ay yéene la euh, gannaaw ba nu sant yàlla sant sëriñ bi wér ñaanal suñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg ya, fi lool ba naal yi mu naalal suñ Tuubaa mu àggale ko bu mm, kaw a njottam mm, ba naal yeneen te ànd ko murit yëpp te nu yàgg ya topp ci kanam ya yàgg am ngërëm di ñaanal suñu sang bi sëñ Xamsatu mu moom soxna bu suñu borom defal ko tawfeex guddal aw fanam si loolu nga ma laaj danaa ci sawar lool ganaw sant gi leen sant ci taxaway bu liggéey bu liggéey bu rëy bi moy liggéey sant sëriñ bi ak kennal ko sëriñ bi suñu borom ko jëk kennal suñu borom moko jëk ber beru bopam ndax liggéey bu beru bi mu def liggéeyal yalla liggéeyal ko rasulullah sa salaam kenn kenn ku yalla bind bi suñu borom bind na asamaan ak suuf ak legi ku ko mas ko mas def amut te de su ko gisul mu kiit kon loola njukkal li mooy noonu ko suñu borom def beral ko ci biir mboolem nit yàlla yi mu beral ko suñu bopp bu ne ko kenn deful lu defal ko suñu bopp ngir yaakaar gën ko yaakaar ak féete gënu féete ak moom te am ci ful ak fayda ndokk nag bi ngeen ci nekkee te ji boole leen ko dara yàlla moom sëriñ bi dimbali ba foofu na ko foofu foofu na ko war a teg mu teg lu teg ko fa ndax sunu borom ko jëkk a ber euh, di santaat ci liggéeyub xaside yi ndax saa su bis boobu yi di waaj a ñëw da ngeen koy waajal ci ci ci wàccaay woo xam ne wàccaay yaatu la woo xam ne mboolem ñu liggéey liggéeyal yàlla ñor liggéeyal sëriñ sëriñ bi ñor danañ ko ànd ak yéen kon na nga leen di sant ci fànn boobu baax a baax a baax sëriñ bi nag euh, damay faral di wax ne fi nu ko teg Amna am amaana xam buñ ko am buñ ko waxtan ak ñom euh buñ wax ne lislaam dana jëm waaye ñoom dañ ni jëm ndax lissam dana jëm ndax lissam bi xam na xam na sëriñ bi lissam ji sëriñ bee ko mm, te lissam dëgg-dëgg mo sëriñ bi e, dëgg-dëgg lissam mo sëriñ bi daanu ko di nak ñu xamni dañu fété dañu dañu dañu dañu jappé daanu ko dama jàpp ne noonu noonu noonu ak tawféex ndax sëriñ bi euh, mboolem ñu su ñu sa xëyal yàlla te am dara fi suñu borom xam nañ ko def nañ ko muy seen kilifa it ndax salaaso mi mi mi sami bindee fi nga xam ne moom la ñëpp yaakaar moo ko beral ba foofu ndax moo wax ne xaddamta bi taqdi allah ya rasuluna wa xusnal xulaa yaa nasar al xaq bi dax kon sëriñ be sëriñ bi salaasa mo ko jëkk ber gannaaw bi ko suñu boom bere <laughs> kon sant nañ ci jotaay bu baax a baax a baax xam naa mën naa bañ a gudd waaye nag eh, mbégte lañ ci am euh di lay seeral dal nga liggéey bi am nañ ko gën bu baax baax inshallah dess na ko ànd ak yéen te it mo ngi wo ñepp nak kep ko xamne xam ne ñor la xasida yi ñor la bisu bobu war na ko wajal bu baax baax baax ngir ndamal ndamal ndamal waxuma sax ndamal Cees la waaye ndamal lislaam la ndamal yoon la ndamal àddina la ndax lañ fay liggéey ci xasida euh, xëjul fenn xasida yi moom xëjul fenn ñu xasida yi xëjul fenn waaw ndax euh, lu ci nekk lépp ci yiw mën su ko wax waaw mën su ko leeral kon santaat nañ ci bu baax a baax di ñaan Sëñ Tuubaa dëpp lañ ci kattan Euh, dimbali leen ci bu nu jagleel leen ngërëmam ndax sëriñ bi moom ku mu liggéeyloo dégg ma nga la beral na la ngërëmam waaw sant nañ ci bu baax a baax a baax xam naa loolu bi signal yi daana doy ci xanaa ci <laughs>